rakk ci Serigne Amdi waaw circonstance yi ni nga ko waxee jàpp gi mu ngi am euh, dakaar dakaar la amee ci buntu clinique bu suma assistance foofa la la amee booba nag Serigne Cheikh Thioro mi ma tuddu moom la àndaloon wax naa ne dañ leen invité woon a xéwalu maanaam añ bi mu noppee mu sàkk woon ci Serigne di ngir mu gunge ko ngir am mbokk mu ñu seeti foofu ndax dafa entré woon foofu ci clinique boobu waaw bi mu demee ba war euh, bi ñuy génn nag mbir mu ni mel nag foofu lañ leen lañ lañ leen arrêté bañ arrêté nag li bokk na ci li ñu wax ne moo tax li ñu wax ne moo tax mooy li nga xam ne moom def ci rapport bi rek li ñu wax ne moo tax dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo demoon di lever maanaam blocus bi nga xam ne moo nekkoon ci buntu kër eh, Ousmane Sonko. bokk na ci li nga xamante ni daal moo tax moo moo moo moo waral jàpp gi boobaa léegi nag xaw naa yàgg ndaxte def na lu ëpp juróom benn weer daanaka loolu moo waral maanaam toog gi fii. ngir di eh, ñaan mbir mu ni mel daal. jotaay bi dañ ci sàkku sëñ Aafiya mi sax di samawe dana ci gën a ñëw mooy moom mi nga xam ne mooy kilifa gi mooy njiitu réew mi ñaan ko rek ngir maanaam mu mu mu woyefal waaw te xam ne ki nga xamante ne bi moom lañu ñu téye ni nekkul nit koo xamante ni nituk fitna la nekku nit koo xamante ne bi maa lenn liy safaanub jàmm moo ci moom nituk jàmm rek la waaw du xuloo du xeex nituk jàmm la daal waaw gisuma ku ko ëpp jàmm tey itam ñi bokk moom moom moo loolu lañ xam ci moom parce que ñun yàgg nañu moom xam nañ ko daanaka ñoo gëneendoo ba toll nii ñu toll kon xam xam nañ ko bu baax a baax xam nañ mooy ba ba ba nit. ñu teew fii tey dib kuréel kuréel boo xam ne ñu ngi teew fii tey ci suufas Daaru Salaam suuf su sell sii kuréel beet li tax ñu teew fii tey. dañoo yalfandoo waale seen ndigal yi kilifa ka ca jiitu mooy fadlata cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam li taifatil muridiya ak Serigne Salihu Mbakke xalifa maam Cheikh Afe imaamul muttaqin ak xalifa maam Cheikh ak xalifa sëriñ Mouhamadul Mamoun di sëriñ Abo xafisahumullahu wa raahum waaye ñu teew fii tam représenté fi mboolem askanu maam Maaram Mbakke li tax daje bi nag ñu daje ko tey ji fii loolu mooy dañ bëgg a gaaral président Macky Sall muy am Amdi mbake mii di doomi sëñ Modou Alim waaye itam di rakk ci sëñ Cheikh Mouhamadoul ndax mook sëñ Mountakha ñoo bokk menn maam ndax Cheikh Amadou Bamba mii jur woy jur sëñ Muntaqa ak maam Cheikh Afi mi nga xam moo jur woy jur sëñ am Amdi ñoo bokk benn baay kon kon kon rakkam la sëñ Amdi nag li ma mën a xulaasa maanaam conclusion bi ma mën a def mooy mooy muy xulaasatul li sëñ Maam Mor ñëw na ci sànq mooy jëmm la jooxee bokk yëpp xam nañ ko ci yii may bëgg a wax mooy ab yar ak ay teggin am xam-xam nangoo liggéey mësa am convocation mës dem ci manifestation mës am ak problème gendarmerie wala police jàpp ak kon nag kooku boo ñeekoo ni ci kaso bi loolu moom erreur la erreur boobu bii nag moom lañ bëgg a leeral président Macky Sall ndax xam nañ ne kóllëre gi nga xam ne am na ko digganteem ak sëñ Muntaxaa ak yoonu murit am ko digganteem ak kër gii nga xam ne ba muy sàkku lii muy sàkku fii bokk na ci basam yi gëm nañ ne loolu su ko bàyyee xel jàpp nañ ne du mën a seetaan mukk ñuy ñuy jël rakki sëñ Muntaxaa di ko dugal ci kaso bi ci ay erreur rek kon nag ñuy ñaan yàlla te sabab bi ñu koy ñu jaare ci moom mu dugal ci loxoom woye falal nu mbiram sëñ am di ñu génne ko ci kaso bi mu dellu siwaat ci ay bokkam ak ak njabootam ñu ngi koy yaakaar ci moom daal ndax lii mu yor gëm nañu yàlla ak koo jox te ñun nangul nañ ko ko lii nag di kàddu yoo xam ne ci gàttal moom la mbokk yi waxoon ne ni ñu leen ko tënkal ñu tënkee ko noonu ngir xata waxtu wi. dafa am diggante ABC ak kër gi Alioune Badara Cissé fii la amee ñaareel soxnaam ndey mbàkki mooy mag sëñ am di sëñ am di moo topp ci moom kon ça veut dire bu ne leen relation am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi.